kii àddu ngeen di teelu seen mbokk taalu bi la Modou Kara Lo Touba mu leen di ziare bu baax xam naa ñu am lu ñu bëgg leeral tuuti ci benn vidéo boo xam ne ñu ngi koy gis ci whatsapp ak facebook ci menn mbokk mu demoon ci ay armeel di ziar far lu mu fa gis mu noppi def ci ñaari vidéo ba wax ne benn bi nañu ko tisaare xam naa ñu am luñ ko bëgg leeral foofu lu tuuti ndax nit su xamul bu demee ba gis mbir te xamu ko eh, mën na caa wane ak njuumte du doon moom kese waaye lu lu bari la ci doomu aadama ndax doomu adama yàlla bi mu ko bindee daf koo def muy ab fàtte waa kon wala muy doxee njortu loolu ñun doomu aadama yëpp ñun lay dal xam naa liñ ko ci njëkk njëkk wax rek mooy eh, tisaare gi jëru ko rawatina tudd ay tur dañoo toll jamono boo xam ne nit ñi li ñu gën a ragal mooy ay armeel ndax dee mi nga xam ne ku dee foofu lañ lay yóbbu nit ñi dañu ko ragal trop li may bëgg a njëkk wax foofu mooy tey ñi ne ci biir euh, perkaal boobu maanaa tur yi nga xam ne yaa ngi koy tudd ci ñoom bu xasee àgg ci ñoom dañuy am problème ndax lan dañuy jàpp ne yàqu nañ mën na leen a jëlal jaral jël xaalis bu bari di ko ci financé ngir dellusiwaat te fekk duñ mën a delsi te fekk du leen lor gis nga lii nekk ci eh, percal bi laa am lu ma la bëgg leeral tuuti di ko leeralaale mboolem ñi ne ci biir Sénégal te ñi ñi nga xam ne ñoo ne ci biir xaw ma leen mës euh, xamuñu ma mësuma leen a gis mësuñu maa gis mësuma leen a dégg waaye gis nga lii yow boo ko gis toon sax du leen mas a lor te ñoom nañ xalaat ki def lii am nañ aw dig ak moom te defu ko ngir yàq leen auzu billahi samil alim ki ko def lim ci jublu boo xoolee kayfiya bi bu fekkente ne ñi xam asraar xam xam-xamu baatin xam nañ li ma wax maanaam masalan euh, boo jëlee sa gaal tëmbal ko ci biir géej boo euh, jën wu ne di nga dajeeg moom mais bu fekkente ne xamoo géej da toog rek maanaam ñu indil la lii jën sàngam lii jën sàngam li bëgg wax mooy lépp lu am mën nañ laa wax ne la nàngam la gis nga lii ki ko def daf doon fay coow allahuma amsik aydi xan diw wa diw wa diw wala kasaa kasaa maanaa yow yàlla diw ak diw ak diw day problème biñ may teg buñ buñ ma ko mën a tegati masalan du luñ fekk ci armeel bon na tey mën ngaa fekk ci ab armeel tey eh, nit koo xam ne ab moykatu yàlla la eh, day mooy boroom këram bu dee jigéen wala eh, góor guy mooy soxnaam wala koo xam ne amul soxna wala amul boroom ko mais day mooy yàlla tey bu ñëwee ci ko xam baati mu ne ko man kat damaa gis ne sama xol bi damay mooy yàlla maanaam damay caaxaan léegi kooku pour nga tàqale ko mooy gi li gën a gaaw boo koo defalee ñaan ba noppi euh, fekk ab xabru nga nga àndale foofu tuuti suul ko fa ne yow yàlla kii tëdd fii xawma ko te xaw ma kañ nga ko faat waaye yow yaa ko faat moom leer na ma ne yow yaa ko faat te fi tëral maa ngi lay ñaan ni nga ko faate moom mii na nga faate ci sama xol njaalo bu ma moytu yàlla mukk kooku dutuma yàlla léegi nag ki xamul loolu bis bu ñëwoon ba fekk fa loolu te jëmm ji moo ko moo fa teg moo fa teg boppam ku ñëw fekk ko fa danaan ah diw mii de yàq nañ ko te fekk diwoo ko fa def li ma bëgg wax mooy mag ñi ñu bàyyil diine ñoo ñu fi ñoo fi bàyyi mboolem secret yooyu maanaam ñoo fi bàyyi mboolem secret yooyu euh, nga xam ne du ne lu ne ci armeel rek masalan da gis koo xam ne su bëggee kaaraange gu wér day ñëw ba ci benn garab gu sax ci biir armeel mu dagg la mu fay dagg su noppee bind fa turam daal di dem léegi nag ki nga xam ne xamul loolu bu ñëwee ci biir armeel yi su gisee tur bi danaan nit ñi ñoo bon xool tur jàmbur wi ñu indi fii te fekk kooka moom moo ko fa indi wala moom moo bëggoon kaaraange lu tax mu def lu ko beneen ba li nga xam ne mat na ci jàpp xel mooy jëmm ji nga xam ne maanaam jëmm ji nga xam ne euh, moom moom moo moo def loolu jëmm ji def loolu du ko lor waaye jëmm ji tëdd jëmm ji nga xam ne moo tëdd armeelu ku tëdd nit mënutulaa lor ci kaw suuf maanaam bu nit demoon defi xërëm yi gën a garaaw ci àddina ñëw def ko faat yow mënatulaa lor kon kilifaak ku dul kilifaak keneen a ci yam maanaam ki xas moom la koy jariñ mooy ñaan masalan euh, maanaam gàllaaj goo xam ne dañ ne gàllaaj gi nañ ko def fuy tooy wala fuy wow wala ci garab wala ci armeel ñoom ñëpp ñooyam mag ñi dañuy dem ba sax ne ah, su ma joxe ci benn exemple bu gàtt soo bëggee sa fii kenn du fi ci euh, daggal ci càngaayul néew léegi nga ñëw fekk am néew ñu dagg càngaay la nga ne kii moo bon nangam nangam nangam fekk li mawul li ma bëgg a wax rek ci gudd mu gàtt mooy lii nekkul lu garaaw kon yéen ñi nga xam ne seen tur yéen a ko gis ci biir maanaam bu leen ci ñaanlu bu leen ci ñaanlu bu leen dem fenn bu leen tiit bu ngeen tëddee nelaw leen te xalaat leen ngeen xam ba xam yéen am ngeen koo xam ne séqoon ngeen ak moom coow wala am ngeen problème bu ngeen ko teg wala loo xam ne dox na seen diggante moom ci aw dikk mu bëgg jàmm ci yéen xamul nu muy def loolu la mais nekkul lu leen di lor bu ngeen tëddee nelaw leen lekk leen naan leen dem leen dara du leen jot boo xoolee aaya bi lim li mu tekki mooy man day maa ngi làqu ci yàlla mi nga xam ne dégg na lépp xam na lépp yow yàlla mi may làqu ci yow na nga ma musal ci ay woo xam ne yéen ñi mu tudd ci tur yi maanaam nar ngeen ko yëkkat seen loxo jëmee ko ci moom na mucc ci yéen comme ni mu të ni mu muccee ci ki tëdd fii xam nga ko xas tëdd ci armel moom mën a tolloor kenn kon moom daf doon fegu xëy na nit ñi nag dañoo dafa bari ñoo xam ne seen xel dafa gàtt ba luñ ñu leen mën naa tax nga mucc jaral la leen ko jaral leen dem ci armel def nanga mais am na koo xam ne du ko jaral loolu moom day xool la gën a yomb mais boo gisee ma def vidéo mooy bëgg yéen ñi seen tur nekk ngeen dalal seen xel maanaam te bañ a jaaxle bañ a tiit waaye euh, mbokk mi nga xam ne yaa def vidéo tamit nga xam ne lii nekkul loo xam ne lu garaaw la ba ñëpp war ko partagé te bu nekkoon lu garaaw waruñu ko partagé parce que daf leen di indil jafe-jafe waaw mën nañ ci indi euh, xalaat juru leen ay xalaat juru ay problème ñu jàpp ne ñoom yàqu nañ parce que doomu aadama day dox ci njortu li ñuy wax ne ab ragal da nga takk bët yi sax muy gis kon loolu la mais jàmm rek la leen di jural te lii ma leen di wax su ngeen toogee yéen ñi ne ci biir kii bi ngeen xalaat dangeen xam ne am ngeen ku ngeen amaloon wu mu bëgg jàmm ci yéen kon du len jural ben lor du len jural ben galankor te xamne xam eh, yii xew bari na te du yak manam da ngay dem du len loo fek ci armée rek ab liggéey la ab liggéey la bu yak nit dedet amna ci ko xamne bo topé soxna mu bëgg nga bako def pour nga bako ci armée la koy def mënu ci dara parce que nit du gis soxnaam bëgg ko financer ci alal ju bari ah wala mu sonn ci guddi ba ci nit ñew jël xaalis bu bari ba ko nangu faaw mu def fi pexé lélé tamit nga gis nit. jigéen jékki-jékki ne diw danaa nangu sa borom kër léeg-léeg gis nit ne danaa danaa nangu euh, sa place bi ci place sàngam la koy tax a mucc da koy def ndax doomu aadama da koo donn ci maam aadama alayhi salaam ba nga xamante ni aadama ak xawaa yàlla leen dugal aljan neen wala taqraba hay si sajara fatakuna min azalimin bu leen laal garab gii ndax da ngeen di bokk ci ñi may tooñ keroog ba leen iblis bëggee génne daf leen ne al adulukum ala ala ala sajaratil xuldi ndax du ma leen tegtal garab goo xam ne bu ngeen ko lekkee sax fi loolu doomu aadama da ko donn ci maamam faw liy tax mu mucc mu di ko def kon daal gudd mu gàtt mooy ngeen xam ne jàmm moo leen ciy fekk euh, mbokk mi liñ lay ñaan mooy jërul partage di wër su fekkoon lu wér la sax ñoom yaa ngi leen di teg problème parce que fu ñu tëdd duutuñu nelaw duutuñu lekk te dañ jàpp ne yàqu nañ te fekk du ak yàqu gu jëm ci ñoom du alak wallahi laasim bu doon lu leen alaga nii lañ koy waxee ne nangam ak nangam ak nangam moo ciy dansé ndax ñun liñ fi nekkee mooy lu ñu xam te war koo leeral leeral ko Euh, te ñëpp ñoo bokk yam ci ñun ki def lii ak ki ko def xamuñu ci kenn vidéo bi nii rek lañ ko gisee waaye nag loo war a leeral da nga ko war a leeral loo xam danga ko war a leeral kon lii nii rek la ñoo ngi leen di jéglu ci kàddu yi lu jub ñu sant yàlla lu dëng ki ko doon jéem la seen mbokk taalibe Modou Kara a Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu